yéen ñi xam-xam ñoor ak sunu jotaayu xalima bu ñaaw di dalal boroom xam-xam yi fii ci sunugal 24 point net kon nag tey seen ganangoog mbokk yi seen ganangoog seen gan yaakaar naa itam mbokk euh, euh, ni ñu koy waxee saa ko présenté di procès Kër Massa di ko santaat beneen yoon Cheikh Ousmane balaa ñuy sot rek ñu ngi lay wax asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Seydi Mountakha maa lay nuyu di la ziyaara bu baax di jégalu bu baax si géej gisante giñ géej gisante xat-xati jamono rek la ala kullin di la wax ne wa aleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf euh, la géej gis tam euh, ci loo nekkoon. Ah, sant yàlla du lenn mooy ñu moom ku nekk xam na suñu métier ñaar rek la jàngale ak ñaan yàlla waaw nit ku nekk na boo yëngatu si jàngale wàllu arab ci conférence ci wàllu diine yi ci dem ci jotaay gàmmu yeeg dem si fu ñuy tuddee yàlla yooyu yëpp dañuy am si yow yaakaar yoo xamante ni dañ naan kii daal am nañ yaakaar ne bu ñu ko disee suñ soxla dana ko mën a faj yii rek moo ñu xatal moo ñu sonal. Hmm. yaakaar naa loolu tamit baaxoon na askan wi mën koo euh, bàyyi xel euh, fi may ñëw ci wàllu euh, li nga xamante ni wàllu seet tey laa bëgg nga tojal nga décortiquer ma ko ci wàllu seet. Hmm. muy seet li nga xam safara ndox ngelaw. Mhm. loolu bëgg naa nga leer ñu fi am na ay jamono am na foo ko mosoon wax yëkkati woon ko ñu bëri xaw ci jaaxle jaaxle ci bopp maanaam ni nga ko décortiquer loolu laa bëgg nga dellu nga mbir moo xamante ni damay faral di wax ne képp kuy yëngatu si wàllu ñaan yàlla li ma kay répété bëri na. li la war a gën a ñor mooy nanga xam lu ñuy wax seet seet nag yàlla dimbale nañu ci dëgg dëgg dimbale loolu yëpp ci mbaax ak yàlla la. te amul kenn kuñ siy jëflante wax la sa lañ la say wax lañ la liggéey nga am gàcc nga suuf safara ndox ngelaw alquran na wa kullum fii falaki yasbahuun lu nekk rek dafa am si falak bu ñuy dox te lépp loo xamante yàlla bind na ko rek génnoon ñeent yi nii muy suuf safara ndox ngelaw nga xamante ni doomu aadama bidoom dinaa nekk safara bidoom dinaa nekk suuf bidoom dinaa nekk ndox bidon di dana nekk ngelaw mu des lan su fekkee da ngay nit ki nga gis ne kii bidiwam ndox la ana loo ko war a defal su fekkee ne kii bidiwam suuf la lan nga ko war a defal kii bidiwam safara la loo ko war a defal kii bidiwam ngelaw la loo ko war a defal foofu ñu bëri dañ fay daanu te lii nag fii xamoo ko nga defal nit ki mu gis ah dana jafe de ndax doomu aadama su fekkee bidiwam dafa nekk ndox ma xamal la yoo xam ne tey dinaa am lu leeral tuuti doomu aadama bi dem su fekkee dafa nekk ndox làmmañ ak bët ak cat da koy sonal loo ko war a defal ba yóonal mu mucc sa loo ko war a bindal ba yóonal mu mucc sa loolu boo ko xamul nag nit ki su ñëwee tey na la sama oom mooy métti nga bindal ko garab yoo xamante ni bopp lay faj est-ce que oom bi dana gaaw a tene kon il faut nga xam ne kii bidon bi dox si ndox lii nga ko war a defal mu teel a am ndam bu fekkee ne dafay dox si ngelaw bu yaakaaree dafay yomba tas alal du taxaw si loxoom mun nay dem ba buntu nar a ubbeeku rek du toog mu toog toora du xam lan moo ko tëj kooku bidéom si ngelaw la lay dox ana lan nga ko war a defal ba yoonu say am ndam bu fekkee ne dafay dox si safara àndandoor da koy yomba yàqal trop rab da koy yomba yàqal trop waaye képp koo xamante ni sa mbir mu ngi dox si safara kenn du la yërëm te lépp loo jooy da nga ko ree loolu maa la koy xamal képp kuy biddiwam di dox si safara kenn du ko yërëm te lépp lum jooy dana ko ree waaye nag bu amul ñaan dëgg-dëgg ñaan yoo xam ne moo koy dimbale si faru rab ñaan yoo xam ne moo koy dimbale si rab ñaan yoo xam ne moo koy dimbale si àndandoor lu koy yàqal pour mu teel a ubbeeku dana jafe trop waaye nag kër bu ubbeekoo kenn du ko yërëm ko kon ko war a bindal bu fekkee ne dafay dox si loo xamante ni si suuf lay doon ku yomba liggéey lay doon. ku yomb liggéey liggéey lay doon. utal ko loo xam ne dafay taw si kawam muy jebbi waaye nag fexeel nag ba lépp lu jebbi si kawam rek nanga ko ko aaral boo ko ko aaraloo pour mu toog toog rek ñàkk ko dafay yomb. moo ko xamante ni bidóom si suuf lay dox. léegi nag ñeenti yi nii nag koo seetee ba xam ne kii si bidóom si lii lay dox boo xamul loo koy bindal dafay yàgg ak rek waaye nag du tey la gis du mos a gis. dégg nga de Seydou Mountakha lu jëm si wàllu suuf koo xam ne bidóom suuf lay dox ko pour nga liggéey ko jàpp ko dafay yomb trop. waaye nag nga dimbale ko mbiram teel a tàkk dafa yomb ndax boo amee loo ko tawoo si kawam rek dafay teel a jébbi mais nag lay jébbi si kawam boo ko aaro rek si ni mu gën a gaawee dana ko ñàkkaat mu ne man maa amoon lii kañ laa ko ñàkkaat yii ni nag bu ko sëriñ xamul nag man ngay dimbale doomi aadama mbiram teel a sotti waaye nag dana yéex ndax jaaree woo si bunt ba te waxtul bu yuuta min abwaabiha loolu la alquran wax kon lu nekk dafa am bunt léegi nag nit ka nekk suuf bidoom nekk safara bidoom nekk ndox bi doom nekk ngelaw mu des nag si la muy uuti su fekkee ne yow da nga nekk ngelaw la ngay uuti nekk ngelaw dafay xam ñaanam su fekkee ne da nga nekk ndox la ngay uuti nekk ndox dafa am ñaan bu fekkee da nga nekk suuf la ngay uuti nekk leneen wala nga nekk safara la nekk leneen dafa am ay ñaan mu am yoo xamante ni àndul yàgg naa leen kay wax su fekkee ne nekk ndox li ngay nekk ut safara baax na trop bu fekkee da nekk ndox li ngay ut nekk ngelaw baax na. bu fekkee ne da ngaa nekk suuf li ngay uti nekk suuf baaxul boo su duggee da nga yàqule bu fekkee na nga nekk suuf li ngay uti nekk safara baaxul bu fekkee da nga nekk suuf li ngay uti nekk ngelaw baaxul waaye li ngay uti bu nekkee ndox rek baax na bu fekkee na nga nekk safara tamit li ngay uti nekk ngelaw baax na duggal bu fekkee li nga nekk safara li ngay uti nekk safara baax na duggal waaye il faut mu am xijaab ji nga code yi ma lay décoder képp ku ko xamul ah, ah. man naa ndaw si mbaax ak yàlla lay doon de waaw loolu yëpp suñu baaxee jàll lay doon. mais mais mais mais mais parfois nga gis ñaari way denkante. Hmm. Euh, am koo xam ne day bëgg soxna. Hmm. bu ko xoolee xool seen diggante ba mu yàgg. bu hmm. ñu dem kii mën na dem ci kii mu ne ko baax na mu ñëw ci yow par exemple nga ne ko baaxul. léegi loolu la plupart euh, nag naka nga koy dundee léeg-léeg parfois. loolu bu la si nit dimbalee yow da nga teel a dem parce que lu ko waral mooy da ngay gis ko yàgg ak jigéen lu mat juróom-ñettaat wala fukkaat mu dem sa sëriñ bi na ko yàgg naa ak moom. sëriñ ba seeta ko na ko baax na man du may def loolu man yàgg naa tas ay diggante. waaw da ngay ñëw ma seetal la wax la luy dëgg ji dinaa ne lii de moo si nekk waaye boo si duggee da ko rëcc barke Demba Ndiaye moo si mujj am ku ñëw na ma kii yàgg ak moom por laay liggéey ma ne ko li ma si gis mooy ak tarku fii raaxa li man araada boo bàyyi mooy naf lay si yow waaye boo si duggee da nga si am conséquence yu la naqar nit yàgg na ma siy jàpp kon seetkat bi na wax ki ngay ki ñuy seetal dëgg ji rek. waaw mooy mooy yoon. loolu man moom lay jëflante doomu aadama. kon yii ma lay wax si diggante suuf safara ndox ngelaw koo si bëgg a dimbale da ko dimbale. mais ko gëstu kenn rek moo ma jàngal asraar. mooy sama nijaay. yeneen xam-xam yi si des may dégg benn secret ne moom taxaa am na ko ma ñëw def si xaalis bu bari mu jox ma secret boobu noonu ma jëm jëflante seeg jaamu yàlla yi. Euh, numéro téléphone bi rek euh, yéen ñi ko yittewoo 77 la 140 18 81 wala 78 242 77 97. wàllu kaaraange lay boole ak ubbeeku ah. Mmh. ndax nit dina ubbeeku mais ñàkk kaaraange koy yàqal saa su ne. Mmh. ba tëj fekkwaat ko si. Mmh. Euh, wàllu ubbeeku laa bëgg ñu dem. mais ñu bëri dañuy ubbi doomu aadama rek bàyyi. la plupart nag war na am nag li nga xam ne kaaraange te loolu lañ boo yoree di dem di xeexi. boo amul junna li arab naan junna da ngay teel a dee rek ñëpp si junna mooy booy xeex ak ay étudiant wala ngay xeex ak ñeneen loolu noonu police yi di téye nga xam ne boo sànnee xeer mu dal si su boobaa boo ko amul kay da ngay teel a dee ñëpp si rek kon nag man ngay am wërsëg wërsëg am nga sa fetal am nga loo xeexee waaye boo amul protection rek da nga teel a ñëpp si mbir yi noonu la demee te protection moom mooy lépp nit ki boo ko utalee taxsin si arab muy protection lu mu fëgg rek dafay yomb. léegi na tax si nag yàlla dimbali nañu si ba fan yi ñu yor si benn secret jële ko ci benn paap soose suufu bàmmeel ak kaani lay àndal suufu bàmmeel ak kaani lay àndal waat naa ko si alquranil karim waat yomb ma ku la tëkku dana dee ku la liggéey dana yàqu parce que jamono tey tey jii nii liggéeyante dafa yomb moo xam ñi nga bokk ak kër moo xam ñi nga bokk ak société moo xam ñi nga xaritoog ñëpp rayante rek léegi moo fi am ku la ëpp gàllaaj rek moom moo lay gën a dund moo lay gën a texe rayal ma ko mu jógee fi waaye loolu boo ko takkee sa kër sax képp ku nekk kër ga mucc na sa alal dana mucc sa njaboot dana mucc déedéet takkal da nga koy takk da koy takk rek suufa bàmmee lay àndal ak kaane mu nekk lu ñuy bind ba pare Ah, moo tax su fekkee ne nag ubbeeku la lu ñuy wax sabaan sabaan xam nga secret ñëpp la. Ah. waaye dañ see xam ndigal amul ku may jëflante ak lu doon na bindal naa ko sabaan sabaan muy benn am lu ñuy wax tamit zul nay ni benn secret mu am àndat bu bari bu ñuy bind dugal si yow sa tur mi ñu bëgg a dimbale. war naa ko si yàlla bu ñu la ko defelee ren déwén nga yokk ah, maanaam mun taqaab ren du bokk mun taqaab déwén. te man damay faral di wax ne lu ma lay defal rek lu ma sa commentaire boo gisul rek owaat ma téléphone. te loolu yàlla may nañu si macha allah. te nag kuy liggéey ba nga ubbeeku. Ah, képp kuy liggéey rek ba nga ubbeeku. Ah, ñaar rek mooy amal xaalis. Hmm. Euh, euh, ñaan hmm. hmm. euh, yàlla doomu aadama bu ñëwee na dama bëgg nga ñaanal ma bu fekkee dafay njaaloo duma ko sa ñaanal bu fekkee dafay sàcc duma ko sa ñaanal bu fekkee dafay dem di gensi ji duma ma ko sa ñaanal waaye nag bu doomu aadama ñëwee na lii dama bëgg nga ñaanal ma sax ma siy dab sama wërsëg dimbalante sa jaam yàlla yi dinaa ko sa ñaanal. wàllu musique ak yooyu yëpp da ku ñëw na ma damaa bëgg daal si wàllu musique bi dinaa la sa ñaanal. ah déglu musique xam wax dëgg yàlla ndax man. Ah, dama am bët bu may nit ñi di xoolee. conférence kat la gàmm kat la tuddkat yàlla la damay dem fu nekk damay jàngale du ma déglu musique ah, ah. moom du ma dëgg yàlla mais ku ñëw na ma ñaanal ma damay musique. dinaa la la ñaanal dama bëgg daayre ndax lu ma nit ñi déglu ko. la sa ñaanal bu baax. naa ñu ma siy jëflante wax dëgg yàlla waaye nag jarul di tudd seen i tur. ah mais dañuy bëgg mu leer nag mooy. waaw bëri may dimbalante si wàllu ñaan. ñoom buñ amee lii dañ ne lii ak lii sëriñ bi laa si bëgg def luy lii sa xalaat nga def sa lan sa bëgg def. man la ma wootee fii du yoo xamante ni maanaam neefere bëy bëy. waaw neefere bëy. moom lay àndal. foo tëgg dana am mbooloo. Ah. foo tëgg dana am mbooloo. dégg de léegi nag mu des loo xamante ni te ma gëm ko mooy looy am deesaay dimbalante jaamu yàlla yi. Ah, foofu leen toll. ndax lépp loo gënee te dimbalante sa jaamu yàlla yi rek damay wax na man des na te lii may wax na su fekkee ne wax naa ko yëgën ñu ne ah sëñ bi de moom li muy wax ni moom dinaa des tànnal benn tur bismillah ku yàlla may tur muy kan Waly Seck da nga ko ko si ban côté mooy lan mooy viam waaye nag xam naa ko dégg naa turam te dama koy seetaan si biñ ko invité mu tombé ma jàpp seen boobu noonu waaye nag bu mu fekkee mu nga musique damay romb seen ba waaye nag maa ngi lay xamal na ku ko bëgg laa tay la tax. foo te dugg na sama xol na te dootu si génn ba faw su côté bi may waxee yow ku ma déggu danga si bàyyi xel si ni muy dimbalanteeg jaamu yàlla yi. yaa ngi dégg wax ni muy dimbalanteeg jaamu yàlla yi dama ko bëgg si côté boobu noonu trop tay la tax ndax umput kenn si àdduna bi ne. fan yee paas rek dem na si eh, foofu nañu tëj xale yi mu génnee alalu boppam dimbale leen ko umpul ne fan yee dem na Petrosen mu dimbale ñi nga xamante ni seen alal yàqu na jël lu mat fukki million ak weccet dimbale leen ko te umpul ne ñëpp seetaan ko télé foofu laay waxee baax lu tax ma bëgg ko paree naa ko leeral ñëpp seetaan ko télé man seetaan naa ko DTV seetaan naa ko ngoonal DTV nit ñi seere nga gis na chaque année dana jël ay fan mu dimbale ko jàkk yi way néew di doole yi hôpital yi ndongal daar yi mu di ko def si alalu boppam léegi nag ma seetaan ko ngoonal man ñu invité ko mu ne président invité ko ñoom ñaar ñu toog président na ko loo bëgg mun ne ko dara leen rek laa bëgg nga daggal ma foo xamante ni dinaa fa tabax gune yi dafa jàngee ndax yàlla na wàññee ko léegi nag xaalis dafa sax sa xol xam nga xaalis dafa sax sa xol su fekkee nit mën nay jël alalam ba kay bokk jaam yàlla na ñëw leen ma dimbale leen ko ku ko ñaanalul xaama yow kan nga war a ñaanal. tabarkalla yaakaar na li nga waaw la am na solo ku ku ko ñaanalul. Mhm. war a ñaanal. moo tax ma na la ko bëgg naa ko si jëfin googu noonu muy jëf te man de sama wàllu bopp laa xam ma denc ko ñaanal ba faw guddi gu jot dinaa ko téye benn dog si yaakaar fii lu waaye sànni yal na dellu. yan na ko yàlla na ubbi nag ba faw fi mu ngi nekk ci jéego yii nii du ma sa dellu gannaaw macha allah Cheikh maa leen di sant nag bu baax ndax lii ngeen de def ñëpp ñu ngi leen di suivre li ngeen di def jaamu yàlla li ngeen de dimbale bu baax yal na yàlla dimbale leen yal na yàlla ubbi leen yal na yàlla taxaw leen si zaahir baatin di jaale ñëpp beneen yoon suñu sëriñ suñu royukaay suñu xarit suñu lépp suñu papa suñu maam suñu nijaay ñuy Cheikh Béthio ñu ngi ñaan yàlla yan na ko yàlla xaaree ajana yan ko sëriñam sir saaliwu teeru si daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam réew mi ni yan na fi yàlla def jàmm xaq qadri azim jërëjëf euh, Cheikh Ousmane Diago mbokk yi di ko ñaanal rek allah bur bi subhaanahu wa taala doolee guddal sa fan lool doole laa defal tawféex ak tay si rek nag yaaxa defal la saxa daa leen ci barke yonent bi nga yàgg lool di jëflante ak askan wi waaye itam saa borom bi di defal ndam itam saa su ne itam mbokk di leen fàtt rek ni Kër Massar la euh, di leen yi 77 140 18 81 wala beneen numéro bi 78 240 77 97 nuyu mu Sunugal 24 point net ci wàllu bi caméra beeg di ko beral seen seeti ngërëm ci wàllu réalisation bi Serigne Aliou Top ci wàllu présentation seen jotaay xaalis moomu ñëw ak seen mbokk yàlla yàlla sa borom bi doole ñu defal jàmm ñu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen ñi xam-xam ñor ak sunu jotaayu xalima bu ñaaw di dalal boroom xam-xam yi fii ci Sunugal 24 point net kon nag tey seen gana ngoog